def la nga xam ne moo tax ñu koy jariñ la nga xam ne moo tax ñu koy tabax loolu moo tax dafay xiir jullit yépp ci ñu bennoo euh, bàyyante xel jàppalante rawatina ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole ci biir xeet wi te mooy ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw muy miskin yi muy ñu ñàkk ñi ak ñi nga xam ne dañoo euh, toll ci ñu war leen a taxaw te yàlla xañ leen ka leen a jege ci ku leen war a taxaw muy waajur muy jirim yi ak ñi nga xam ne ay doxandeem lañ eh, ak ñi nga xam ñëpp ci biiru xeet ñu bari duñ leen faral di bàyyi xel lislaam moom day jox yitte ñooñu di leen bàyyi xel di leen di soññee ci ñu jàppale leen moo tax tey waxtaan wi mu ngi jëm ci taxawu jirim ak teral ko jirim mooy gone goo xam ne waajuram dafa génn àdduna te moom àggagul ci ak kàllafe mënalagul boppam ñu war koo taxawu war koo yiir war koo aar war koo jàppale kon jirim mooy ku waajuram bu góor genn àdduna mooy loolu mooy jirim ci lislaam ku baayam faatu muy gone euh, ko kon tuddee jirim ci lislaam xam nañ ne lislaam dafa seddale taxawaay yi ci biir kër waajuru góor muy baay moom la yàlla dénk sas sasu war a taxaw njaboot gi ci lépp lu ñu war a aajowoo ci ab dund ak dëkkuwaay ak wér gi yaram ak njàng akub yar lépp loo xam ne rek lu ñu war taxaw nit ki la ba mu mën a nekk nit ku mat ku sotti ku man lañ koy doyee la ci taxaway ba mi ngi ko tek ci kaw loos wajuru gor wajuru jigen mom ñu ko sas mu taxaw mu indi indi jëm ji ci jamono bu ak am dom ak nampal ak yor top top jëm top top yaram la ko sant waye lepp lo xamne lu ñuy gaddu la ci walu alal ak lool mom ci gor gi la ko tek kon ki ñak wajuru gor woowu day dal di nek ku lu reey reey ci limu yitte wo ci dundam rawati nag mu tel ko ñak ci waxtom ku gëna soxla moy waxtom muy doga nek waxtom nekké ndaw maggagul euh, bay manal bopam motax ko ko mat mata bàyyi xel la motax l'islam jox ko euh, euh, soñi la li tam ci ñu bayyi ko xel ta di ko jox yité motax kon buñu dello ci alquranul karim dello ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam itam ci jangalem serigne mag bi ak doxinam dañuy gis ne bàyyi xel jirim ku waajuram génn àdduna ñu bàyyi ko xel lu am solo lool la lislaam dafay santaane ne kii waajuram génn àdduna bàyyi ko fi alal jañ ko la nga xam ne moom la waajuram bàyyi ci alal te muy loo xam ne alalam la moom doom ji muy ndonoom dafay santaane ne nañ ko nañ ko sàmm nañ sàmm alali jirim nit ki bu waajuram génnee àdduna lam bàyyi ci alal muy lo xamne dom ja jaa ko mom te dom ji gut man la mën a ta yor yefi bopam mën guta gut a saytu dafa diglé né nañ bayyi xel alalam jojé samal ko ar ko ba mu doon mu kàllaf yëkkati alal ji jox ko né ko lii kat moy sa alali waajur mo xam loola kër la mo xam alal la ju ju ñuy woom lo lu mu ci man don rek war nañ ko ko samal ba mu doon mu kàllaf ko ko né ko lii la fi sa bay bayyi lolou l'islam da ci taxaw yitel ko lol euh, digle ko santane ne bu ci kenn jalgati dara wax na ci alquran wala taqrabu al yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashudda euh, wax nako ko waxaati ko ci ay barab yu bokkul bu leen jege alali jirim bu len ko jage di ca def lo xamne warul ci xeeti jalgate du ngeen cee def rek na nekk loo xam lu gën la na ngeen bu bu gën rek bu leen ko ca def bu ngeen jëfandiku bu ngeen cee def na nekk jëfandiku boo xam ne mooy ba ca gën mooy lu koy aar mooy lu koy sàmm lu koy sekki lu koy lu koy nañ ko ko kon ba ba muy euh, àgg ci am manal bopam ak sañal bopam ñu yëkkati alal jooje ko ko kon loolu la alxuraan santane mu wax ne ñi nga xam ne dañuy lekk alali jirim ci tooñ nañu xam ne la ñuy lekk sawara la sawara la ñuy def seen biir euh, ndaxte bu ëllëgee da leen di jural yóbbu leen sawara leen fa mbugal inna alladina yaakuluuna amwaala yataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yaslawna saira ñi nga xam dañuy lekk alali jirim yi ci tooñ nañu xam ne alal sawara rek lañuy lekk ci seen biir te bu ëllëgee dañ leen yóbbu ca këru safaan ba mbugal leen fay leen la nga xam ne moom lañu doon def kon loolu ab xuppe la bu rëy boo xam ne ñu koy xupp ñi nga xam ne yàlla dafa dogal euh, ñu am yi bokk ñu bàyyi ko fi bàyyi ay jirim alal ja nekk ci seen loxo ñu war ko sàmm kon loolu ay xupp yu rëy la ci ñoom ngir ñu sàmmal jirim yi seeni alal ba ñu màgg ñu jox leen ko alxuraan mi ngi ñuy wax ne képp koo xam ne yàlla dogal na nga am mbokk mu fi bàyyi ko bàyyi ak njaboot gu sew na nga bàyyi xel ci yow ci sa bopp na nga xalaat bu fekkonte ne yow yaa dem bàyyi njaboot gu sew na ngay bëggee ña la wuutu sa ginnaaw taxaw njaboot googa ak yor leen ak sàmm leen na nga def noona yow itam wal yaxsha alladina tarakoo min xalfihim zurriyatan diaafan xaafoo alayhim fa yattaqullaha wal yaqulu sa sadida kon loolu tam ab soññe la bu rëy boo xam ne lislaam mi ngi koy soññ ñi nga xam ne eh, seeni bokk dañoo jiitu bàyyi ay ak njaboot ñu wuutu leen ñoom war a saytu njaboot googee alal ja eh, bokk ya bàyyi waral na ci seen loxo ñu war ko sàmmal seen seen seeni doom moo xam ku waajuram faatu la bàyyi ko moom mu doon mag nekk fekk ay rakam yu ndaw yoo xam ne alal ji ci loxoom mam mag ja ca la nekk kon képp koo xam ne ay jirim dañoo nekk ci kilifteefam moo xam jirim yi ay rakk lañ moo xam ay doomi mbokk lañ moo xam ay jarbaat lañ moo xam nu mën a féete nu leen nit ki mën a féete lislaam da koy soññ kon ci mu aar jirim yooyee sàmmal leen seen alal ba ñu doon ay mukallaf mu jébbal leen ko noonu muy soññee ci aar alali jirim ak sàmm ko noonu tam lay soññee ci ñu taxaw jëm jirim bi ci boppam ci dundam ci njàlbeenam defal ko lawar ci yor ak kub yar ba nga xam ne ñàkk gam ñàkk ay waajuram du seeñ ci eh, aw dundiinam ci waajtaayam ci niñ ko war a waajale ci njàng akub yar dañ ko war a taxawu kon ba yor ko yor ba gën a rafet yar ko itam yar ba gën a rafet ba bu ëllëgee bu màggee du du du mën a du ñee ña nga xam ne ñoom seeni waajur ñi ngi fi woon du am lenn lu muy nemmiku ndax ne kat ñee am nañ nàngam man awuma ko ndax dama amul waajur moo tax jànguma walla moo tax yaruwuma mbaa taxawuñ ma kon day soññu ci ñu taxawu jirim yi jàngal leen yar leen jappelé ni suñu doomi bopp euh, lolu la l'islam santane lolu da cee diggee yol bu reey reey reey ci ko xam dafa yor ab jirim saytu ko jangal ko yar ko taxaw ko ba mu doon mu ba manal bopam lolu yol bu reey reey ak ju bare bare la ci l'islam mm, dige bok na ca rek la ca lo xamne buñ ko ci waxe mu doy moy sallallahu alayhi wasallam neena moom moog mook ku yor képp ku yor ab jirim ta def la ca war ba mu doon mu kàllaf nee na kookee bu ëllëgee moog moom moog yonent bi sallallahu alayhi ñooy bokk nekk ci àjjana euh, bokk fu ñu nekk ba mu ko waxee dafa tàllal ñaari baaraamam baaraamu digg ak baaraamu sànnikaay la tàllal xawle na soreel tuuti daal ne man ak képp ku yorub jirim bu ëllëgee nii la ñuy mel ci àjjana tàllal ñaari baaraam yi wane ni ñaari baaraam yi jege noonu lay jege kii yorub jirim ci àjjana kon loolu digg nañ ko ci ne day tab day tàbbi àjjana ndax ko ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon àjjana ne waaye itam digg nañ ko ci ne ko am daraja lay doon ndax ku jege yonent bi lay doon sallallahu alayhi wasallam ci wàccuwaay bu ëllëgee loolu rek doy na sëkk teraanga ak ngëneel akuk pay ci koo xam ne dafay taxawu ab jirim te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci ay xadis yu bari yu bokkul boo xam ne maanaam rek mooy képp ku yor ab jirim di ko taxawu bu ëllëgee ak moom yéenay bokk nekk ci àjjana jege ni baaraamu sànnikaay ci loxo di jege ak baaraamu dey eh, taxawal sore tuuti kon loolu eh, moo tax kon mu soññee ci bu baax a baax ñi nga xam ne tam dañoo dañu dul teral jirim ni mu soññee ci yor ab jirim ak taxaw ko noonu lu soññee ci teral ab jirim digge ci itam tuyaaba ju bare bari ñi nga xam ni ko defit mu tekku len ay tekku yu metti metti bokku na ci limu wax ni araita araayta alladi bid-din fa dalika alladi yad'u al yatim wala yahuddu ala taami miskin mu ne toskare ak mbugal ak sawara ñal na ñi nga xam ne ñoo di diine don ay yéefar te neena na ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañuy bundu xatal jirim di ko xor ñoññal di ko sonal euh, te duñu jox miskin aw ñam duñ soñé ku ko ku koy joxé nga xam ne kon ñaka taxaw jirim ak ñaka taxaw miskin bokk na ci màndargay kéfer ak jëfi nit ku euh lolu lu bari la ci alcorane fu muy soñé ci ñu taxaw jirim yonent bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam borom digal na ko ne ko na nga taxaw jirim yi di len teral te bu len euh bu len euh, sonal fa ama alyatiima falaa taqhar wa ama saaila falaa tanhar ginnaaw bu ko boroomam fàttalee ne ko yow kat jirim nga woon boo xam ne maa la fatoon nga doon ku ñàkk ma ma ma jox la am koom kon nag yow it na nga fay bor bi foo gisati jirim na nga ko teral te fonk ko waaye foo gisati ku ñàkk itam na ko dimbale te taxawu ko loolu bu ko ko bu ko yàlla dee digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal loo xam ne ci kon ci xeet wépp la jëm kon diglé nañ ñëpp di teral jirim yi ak leen bayyi xel té di leen baña sonal ba ñu leen fitnal ba ñu leen di noggatu wala ñu leen di euh, ñoñal bok na ci yiw yi nga xamné nek na ci teral jirim moy né kiko def bu féké jirim bi mi teral diko fat di taxaw mbokk la ñaar yoll la ko ci yalla fay yoolu ku taxaw jirim bu mana doon té yool boobu bu la waaye itam fayaale ko ci yoolu jokku mbokk mu nekk ñaari yool taxawu jirim it day wane ne ki ko def nit ku baax la jikko ju baax lay tegtale ndax nit ku bon day soxor te ñàkk yërmande loola moo ko yóbbu ci du am yërmande ci jirim du ko am ci ku ñàkk du ko am ci koo xam ne dafa nekk ci ay tolof tolof waaye ki yërëm jirim di ko toppatoo di ko taxawu kookee day am dañ koy dañuy xam ne nit ku baax la nit ku yiw la bokk na ci li muy jariñ itam raay jirim ak yërëm ko ak diko ko taxawu bokk na ci li noyal ab xol di rafetal di ci dindi ak wow am na ku mas ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jàmbat ne ko moom ab xolam daa wow bu bëgg mu digal ko loo xam bu ko defee ab xolam noy mu ko da ngay leel miskin tey raay boppub jirim kon raay bopp jirim gis ngeen ko jaamu yàlla gu mag la ndax raay gi day wane ne ku ko yërëm nga ku ko bàyyi xel nga ku xam lim nekke la te loolu boo ko xamee nga yëkku ci saxol dan la xiir ci nga taxawu ko dan la xiir ci nga jàppale ko bokk na ci jikko yu rafet yi nga xam ne lislaam da koy tagg te di ca soññee di ŋàññit ña ko dul def te duñ ko jikkowoo bokk na ci li nga xam day yokk wërsëg képp xam yor nga ab jirim ci sa kër diko ko teral sa wërsëg day yokku yalla dalay defal ubbil ay bunti xéewal yo xamne eh, dana ci fo xamne do ko fa fooge yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee kër yi jullit yépp kër gi ci gën kër yi ci gën moy kër yi nga xamne ay jirima nga fa ñu leen di taxaw waye kër yépp kër ya ci yes moy kër yo xamne ay jirima nga fa yo xamne duñu leen taxaw duñu leen jàppale خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت يساء فيه يساء فيه إلى اليتيم آه، وأنا وكافر اليتيم آه، في الجنة كهاتين أكما قال صلى الله عليه وسلم آه، كن لو لب day wane am solo gi nga xam ne taxawu jirim am na ko solo sëriñ bu mag bi ci mu feñal ci ngeenel lolu bu baakha baax tambale ko ci jëfi bopam mom ci bopam dafa ñaanoon boroomam boroom def ko mu nek baye jirim yépp kep kuy jirim rek eh, yalla fatte lolu sa wajur ngir mom wa tubashshir bi al yatama dawaman an bi abaahum kull xiini mu ne yow borom jirim yépp yalla nga len bégal yalla nga sel sen xol ci man yalla na ñom ñëpp yalla lañ fatte seeni wajur ngir man te lolu ay yalla defal nako ko bu baakha baakha baax bari na lol ay jirim yu dul jeex yo xam sëriñ bu mag bi motax ñu fàtte sen ñak ga ñak sen wajur maa ko tàmbalee ci ñam bokkalon wajur te sen wajur la dem ñu di ay ndaw am ci ñoo xam sax boobu feeñaguñu waye mu taxawu leen na len sen wajur waron wajur ba def ci sax lo xam bu fi nekkon du ci ag ci teranga ak daraja tamale ko ci ñi mbokkal wenn waju wi yaatal ko ci bokku gi bokku deret gi ak bokku l'islam gi eh, bu baax euh kon lool it man ñu japp ne kep ko xamne yaangi yaa yëngu ci wet googu yaang koy liggéeyal ndax dafa ñaanon yalla seral xol jirim yep ci mom kon kep ku bok ci mom ci ci askan ba ci pas-pas fo taxawoo jirim rek ba xolam sedd mel na ni yaa ngi koy féete ci liggéey boobu nga xam ne moom la ñaanoon yàlla féetale ko ci te defal ko ci loo xam ne euh, lu kawe njort la euh, kon loolu mat naa bàyyiwaat xel bu baax a baax taxaw jirim ak teral leen ak euh, yar leen ak jàngal leen ak sàmmal leen seen alal ba bu ëllëgee du ñu am dara lu leen naqari ci ñàkk gi ñàkkoon seeni waajur Euh, bu ñu xoolee itam ci ñi nga xam ne ñëpp ñooy njabootu sëriñ mag bi ñi mu meññi ak ñi bokk ci moom ñëpp nañuy taxawee ci googa wet royukaay yu mat sëkk lañ ca kon daal jot nañu bàyyi waat xel bu baax ci ñooñu ak ci képp koo xam ne aajo woon a yërmande ak ndimbal ñu bàyyi ci xel ndax yàlla yërëm ñu dimbale ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa